changé mooy sol beneen mbubb gis ñu ñi ñuy gis ci aar bi lu bëri doon yi nga xam mooy daw jamono ji dañ ci gis ay série yoo xamante ne la bu ñu xoolee tey série boo xamante ne bu mel li si ëpp dañuy jàngal xale yi ni ñuy nobantee eh, yu mel noonu te yéen mën jamono daa ngeen joué ay film yoo xamante ne tey bu ngeen ko joué tamit xale yi dañ ciy jàngee mais li ñu ciy jàngee tamit bu baax lay doon mais du doon safaan waaw côté boobu dinaa la si tontu comme euh, aar bi mu ngi mel na mbubb mu ngay sol mais bu fekkee ne yow dañu la ñawal ñaw ñaw mbubum góor ngay jigéen bëgg a sol mbubum góor doo niru jigéen góor ngay niru dama lay jox exemple si aar bi laay wax nii de ñu jaw ñawal la mbubum jigéen ngay góor nga sol mbubum jigéen looy niru jigéen aar bi noonu la mel léegi bu jëkkoon dañu doon yeete nun nun dañ daan théâtre théâtre boo xam ne yeete la tudd maanaam artiste la tudd tout tout le temps bu ñu ma laajee si télé ma wax leen nañu ma bàyyi xel li may wax jànguma français mais bu dee si affaire théâtre yàlla xëy na may na ma si affaire bi tuddul théâtre kat théâtre ra théâtre rek théâtre rek wala artiste la da ngay gis bu góor boo xam gis reelu si koñ rek gars yi tàccu ko rek ni ko yow na nga aaye boo duggoon yaa man ñuy suyee théâtre mu mu daal di man man artiste la ba ngeen ma jëloon mu mel ni tuddul artiste la ku mënul artiste yu nit ki si métit ñu teg sa kaset nit ki di ko xool ba fàtte métit bi mu nekkoon nga aaral ko tiisam bokkoo si métier bi loolu mooy artiste artiste la ñu tudd tuddu ñu artiste la rek déedéet mën nga reelu si koñ ba bëgg a dee boo demee si théâtre kat yu mag yi nga bokk ak ñoom plateau bu ñu daañu wax loo xam ne doo ko xam yow te léegi ñoom mbubu moomu nu soloon di théâtre ñoom dañu ko bañ sol sol mbubum cinéma te mbubum cinéma tubaab ak moom cinéma tubaab ak moom ndax cinéma li ñu yàq si cinéma sénégalais mënu ko cinéma yi ñoom seetaan nañu cinéma yi taali oto daanee li étage daanee lu lu ne rey nit def loolu cinéma yi tubaab ak moom ñoom nag sénégalais yi loolu lu ñu jël def loolu ñaareel ba léeg-léeg dinaa loo xam ni borom xaalis yi nag li may wax bu leen neexulee dinañu ma ko baal te xam naa ni dëgg laa man am na si borom am na si borom xaalis yu am xaalis ñu ñu ñu ñuy théâtre vrai la ñuy financé mais am na si ñoo xam ni seen xaalis ay ay xale yu jigéen yu rafet lañu ñu koy financé wala xale bu góor bu am troupe boo bare xale yu jigéen yu rafet ñu financé ñooñu xaalis bi c'est pas normal nañu bu fekkee dañu bëgg réew mi avancé si lu baax nañuy fi nañu financé nit ñi nga xam ne dañoo yeete di wax lu baax nit ñi di si concentré wu ëllëg ñu am lu ba mais xale yëpp léegi lu tax ñu yàqu lool la borom alal yi ñoo def ñooy def xaalis yi di financé troupe yi nga xam ne dañoo am xale yu rafet rek xale yi nag di jaayu pour am jëkkër da ji xale boo xam ne mbir daan la ko def mu gën a rafet fuuf ki patron gën koo rafet yëre ëpp ko xaalis te te nekk mbinaat c'est pas vrai yooyu yëpp duñu ko xool casting yooyu duñu ko xool te casting da nga koy xool wala ñu jël xale boo xam ne moroomam moo nekk yaayam nit ñi dañu dof ñi ñi seetaan dofuñu dañu xam ne kii mënul jur kii bu doon bu daan temps bu nga xam ne jamonoy tey ak daara ko ci ñoo am nag dañuy xool si si der maanaam deret ah, xam ni kii si physique si kii si eh, écran bi nii ah, am nañu tere pour niroo mais si biir loolu kenn ki dafay mag kooku fuuf ba mën koo jur ñu def ko mu yaayam loolu moom mooy casting normal nga xam ne ko xool xam ne kii kan mën na ko jur waaye moroomu jànq ki ki nekk yaay sax moo moo gën nekk xale ki ki mu jur loolu loolu dafay loolu du théâtre nañu seetaat seen bopp bu dee dañu bëgg théâtre